waaw ndeysaan ñu ngi noonu grand combat baa ngi noonu diggante Papa Boy Djiné ak Papa Yada Papa boo Djiné nekk écurie Waalo doomu Gounass baa ngi noonu war a dee ak Papa Yada xale boo xam te ne musul dégg muñal Papa Yada écurie Lébu gi Lébu gi doomu Tëngéej baa ngi noonu mu nekk première édition drapeau El Hadji Djibril Ndoye promoteur immobilier opérateur économique DG Diamalaye Agir Global mi ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu Papa Yada bu Lébu gi gu nekk euh, Tëngéej baa ngi noonu war a bëre ki nga xamante ne ndeysaan mooy Papa Boy Paa Boy Djiné bu écrit waalo doomu gunaas baa ngi noonu ndax Paa Boy Djiné dina ko jox dëggloo muñal ndax Papa Yada fam doon jare adversaire am lay jaar ak moom ah bi sifflé na la mbokk yi ñoom ñaar ñi ngi lewtoo Paa Boy Djiné Papa Yada ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan grand combat baa ngi noonu Papa Yada Paa Boy Djiné ñi ngi lewtoo ñoom ñaar Papa Yada wàcc na dër mel ni ku nar a dem waaye Paa Boy Djiné mi latéral des fois mu latéral daa dellu si waat di ko déglu ñoom ñaar ñi ngi lewtoo round d'observation balancement de doigt Papa Yade dox na dem ci kawam Papa Boy na ngi dox dem ci kawam Papa Boy Djiné sànni na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo attention Papa dóor na Papa Yade répliqué na daa taxawaat ñoom ñaar ñu ngi xeex na attention xeex bi ñuy xeex ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi léewtoo Papa Yade bu léegi Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné mi ngi dër di ko déglu Papa Yade mel ni ku a dem ñu ngi jàppante baaraam bàyyante dara xewagul attention Papa Boy Djiné dóoraat na ñaari xale yaa ngi noonu gun ak waalo gaa ngi noonu ak góor ak lébu gi ndeysaan ñoom ñaar ngi noonu quelque bëri tomba ndeysaan Jibson production moo fi jaar boo leen xoolee stade bi ni mu mel nga am ne ala domina doon na combat bu rëy boo xamante ni lamb ji ñoo ko soxla woon combat jànk la ñaari xale yaa ngi noonu yooyu ñu ngi léewtoo Papa Yada dellu si waat na mel ni koy woo ci biir géew bi Papa Boy Djiné Papa Yada ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ndeysaan ñoom ñaar ngi noonu sànnante nañ ay xeer coow li bëri woon na ci waaye tey li ñu naan wàllum teen la ku ñëw ci buntu ngay am lépp tey dina leer ñoom ñaari ngi noonu ndax papa dina ko njëkk a dégloo mu ñal ndax papa yaara fam nan jaar ay adversaire am la koy jaarale loolu yëpp tey lay leer ñoom ñaar ñi ngi leew too dër nañ ñi ngi jàppante baaraam na ñi ngi leew attention papa yaar dóor na ñi xeex ñoom ñaar attention papa yaar dóor na dóoraan na ñi xeex attention ñaari xale ñi xeex papa attention ñi yaar papa dina yaar dina oh Papa Yada daan na Papa Boy Djiné